El Hadj Ahmed Aidara bismillah président Macky Sall waxati na discours ba sur quotidien discours président Macky Sall boobee day waaw ma ne la sa opposition bi da leen a sorobee ko wax waaye nag daal di guerre ñi xam ne kon def katu tojaange la ñu dee di criminel ya la quotidien ne kaay ne Macky Sall kay ab paquetage saa paqueté lépp kay maa la ko wax wàllam kaaraange gi lee wàllu njàng meeg njàngale mi wàllu wér-gu-yaram gi lee ak yeneen ak yeneen sax l'observateur ne kon réalisation yo waaye tamit ay docteur xel dal na waaye nag ñu nga seen ba di xool ba léegi ni la vigilant wal fajiri ne déetu indépendance kookee ma ne la président Macky Sall day discours bi nga xam ne moom ah. ma ne la discours premier ministre la rek ah, ah, maa la ko wax parce que nag gis nga Macky Sall mii li taree nelaw sénégalais yu baree bare sax ma loolu tere nelaw di mukk ci këru adduna ci addina parce que ay millions yi millions ci ay sénégalais day waaw dañ doon xaar président Macky Sall daal di dalal ci eh. waaw benn projet de loi nee ma wàllum parrainage que waaw ma ne opposition bi tamit day da ngay préparé nag ngir daal di dem nag ca buntu assemblée nationale koo daal di ñaxtu nee ma 23 juin waaw ngir Macky Sall daal di dellu ginnaaw nag ca projet de loi boobee boobee nga xam ne ñoom day dañoo jàpp ne wàllum stratégie la ngir daal di éliminer kon yenn ci ay candidat parti Italie la ilaha waaw parce que Khalifa Sall day éliminer nañu ko Karim Wade day éliminer nañu ko ñooñee bokkatuñ ma ne la Thierno Bocoum day ci Walf Fadjri waaw nee gis nga Macky Sall mi ah daa waroon a kon ci discours am dalal xel ya expliquer sénégalais wàllum loi boobee comprendre duñ ci dara déedéet parce lii day la ñu tuddee constitutionnel maanaam sartum réew mi lée dañu bëgg caxat-caxatee waaw waaw nañ leen góorgóorlu waay ba adduna bi buñ ñu ree bu ñu sukkandikoo ci Abdoul Mbaye bi lée mi ne xam nañu kii Macky nous connaissons cet homme xam nañu ko li bëgg daal du dara lu dul éliminer kon yenn ci ay candidat Seydi Gassama waaw ne ca jamono waaw ma ci ay millions et millions ci ay sénégalais yoo xam ne day parti élégeur loolu la Macky war a wax loolay dëgg yéene kaay gi ne moom président Macky Sall waaw doon nañ ko xaar tamit ci lu jëm ci wàllum indépendance justice bi la <laughs> waaw waaw waaye foofu tamit day France daal di xideen black out total waxu ca dee déedéet ginnaaw ne kon ba ñu condamné kii di Khalifa Sall ñu ni waaye juge Hamidou Dem daal di tekki ndomba tànkam tamit tribune yéene ne Macky Sall kay li mu wax bëri na Idrissa Seck ca enquête ne Macky Sall daal boo bëggee dégg dëgg benn liggéeyee ko fi dese ak benn discours kaddu mooy lan mooy jéggalu sénégalais lii rek la Macky war a def jéggalu yi nga xam ne tam ñu ngi chômé amuñu liggéey Macky ñoo fi indi woon plan Sésame ñuy faju te léegi nag mënatuñoo faju ndax hôpital yi waratuñ ca de déedéet wal fajiri ne mooyow nit ñi démb ñëwuñu sax dañoo gedd gisuñ fa tamit ay njiitum réew yu ñu invité handicapé yi tamit seenuñu leen statifi seenuñu leen ma ne leen nit ñi dañoo gedd laa la wax ba sobli ne dama ne responsable affaire yi day waaw cinq mille francs lañ doon fay ay jeunes laa la wax liberté ak sikaaba ba ci banlieue ba cinq mille cinq mille ngir tribune boobee eh, mën a fees démb laa la wax nit ñi mën a ñëw dañoo fay ña fa nekkoon junni junni cinq mille cinq mille dañ leen doon fay pour ñu toog ci kaw tribune bi pour foofee mën a am nit yéene kaa gi ne ñu ne teen ni waay seen couleur parti daal lañ doon safalee bis ba ma ne la première dame di ma dem fay sàll ko njëkk bu marron sac bu beige eh way Samba ma ne la commune yi nag élèves yi waaw beige marron rek couleur APR bare laa see jiital APR di Macky Sall day ma ngay surveiller nag léegi Dakar ak banlieue ba ay vidéo surveillance enquête yéene ka ne waaw vidéo surveillance day la Macky Sall kon samp ci dëkk bi sur côté yéene Barthélémy Dias day danañu ko atte suba Bamba Fall day mi ngi Khalifa Sall ba léegi ni lay laaste moom Barthélémy Dias waaw flagrant délit day lañu koy atte Walf Fadjri ne waaye moom Barthélémy Dias moomee waaw dañ koo xañ lekk de añ Barthélémy Dias ne góoru Macky Sall jaay doole gi lee moo def lu ni mel de a xañ lekk waaye nag maa ngi xamal adduna bi yëpp loo xam ne dal na ma ëllëg ci kaso bi lée nañ jàpp ne Macky Sall ak waa këram la waa administration pénitentiaire ba day sa yéene kaay waaw daal di nañuy weddi na kàddu yu Barthélemy yoo yee daal di xam leen ne fan ngeen mës a ci adduna nit ku ne ci kaso ki lay jox lekk jox la ko directement réew mi quotidien ne àndaatu Abdoulaye Wade ak Idrissa Seck day waaw Karim Wade da ci box family ne Karim ne ma jafe-jafe dox sa kaay ma expliqué leen lan moo tax ba Macky Sall mi la bëgg def jaay doole forcing ci affaire parrainage ba waaw xam nga Macky Sall soo amee fukki nit dàpp fukki nit ak ñeent ci ay candidat ci kanamam waaw ku nekk mu laaj la soixante cinq mille wala soixante dix mille deux mille dix neuf yi waaw loolu sept cent mille jàpp un million la Macky Sall nag bu ko yoree dana xam seen kër xam seen adresse xam seen carte bu boobaa dina xam ne ñuy ñu ne wala sax mu jàddal seenu vote maanaam jënd leen en tout cas deux doon benn président léegi ne wa ilaa nga tànn ko mu continuer day mooy dal gi nga xam ne am na ci biir mi day justice bi continuer koo yàq rek cohésion sociale bi la justice bi yàq na ko buggaan ngay tani ne fi nga bàyyi ko mu continuer day mooy jaxat-jaxatee kon fi nga xam ne kon dugal nañ ko ci administration publique bi tribune yéen kaay ne forum du justiciable day waaw ginnaaw nag ba ñu yóbbulee kon Khalifa Sall ay inspecteur ba tëj ci kaso bi lee ah mais ñi nga xam ne tamit corps de contrôle état bi dafa demoon càmbar leen jam leen baaraamu tuuma mais ñooñu tam seen na leer lu mel ni ko duggee université lu mel ni port autonome de Dakar direction générale des impôts et domaines lu mel ni Petrotim ak Securiport ak yeneen ak yeneen sax de cëpal ci tribune yéen kaay ne déggoo <laughs> de Fall moom xanaa daa fàtte yonent yàlla Yusuf ak doomu baayam ya wala yonent yàlla Moussa ak Firawna wala Adama Baro mi ak Yaya Jammeh xaayaar na ku dégg séeréer falaa yam boo paree ma ne la alaaji tëjal